wala balla yadayk yabni bi jaahi rasulillahi wa alayka salaam aw wa alaykum assalaam yéen nag salaamu aleykum ma delloo nuyoo ñi ma nuyu woon ba noppi nuyu nag ñi ma nuyuwul woon mu leen di delloo nuyoo sunu ñaari doom sunu sëriñ sunu yaakaar gu ànd ak jëf ju dëppook sunna bi nu agsee kaar ñoom ñaar dolli naa dalal sunu xel ndax sunu borom subhanahu wa taala dina rusi nit ay nit ak nit ay nit am na saar wu ñuy wax kaax fi mu ngi cay nettali wa kaana abuhuma saalihan wa kaana abuhuma tasni lisim bi ñëw ne ci ñoom ñaar foofu te bàyyi booba taxoon ñu respecté bay liggéey liggéey booba ku toll ni xadir soppi boppam maître maçon Moussa di yonent soppi boppam manœuvre ka taxoon ñuy kirkiri ca tax mooma ba ñu laajee ñu ne bàyyam da doon nit ku yiw ndekete du bàyyi bi ko jur déedéet du bàyyi bi jur bàyyi bi ndeke du bàyyi bi jur bàyyi bi du bàyyi bi jur bi jur bi jur bàyyi bi juróom-ñaareeli maamam maamam moo xam ne dafa yiwoon jóg fi xama ki mu fi bàyyi yiw na xama yiwul kooko jóg fi bàyyi fi keneen xama yiw na xama yiwul kooko jóg fi noonu ba juróom-ñaareeli maam tax di sàkk la ah dégg nekk meetal Moussa soppi Moussa élewam ba mu nekk déedéet manœuvre apprenti koy na trop mu nekk manœuvre ñoom ñaar ku ci ëpp daraja du un ah mooy mujjee kooy waaw kay mu ngo yàlla bu dul woon ruuse nit nit man kon dinaa tiit wax naa la ko ba tay duudu ndax dama nasax trop jubadi tayal ñemeñ torop kaar bàkkaar fi ma siin man yàlla dimbali na ma dinaa di gunge ñii dee ba armeel ya dinaa di waxtu bés naa laa laaj ne doom yaay ma bàyyam ku koy jëkk a gis nga naka nakal ma la yaay ji yaay jee jëkk a gis ndax moo wasin waaye baay bi yaay yàlla fay na ko ndax bàyyi mujjee gis ndem dem na armeel ya nu ngeen den di yóbbante balaa noo sori sunu yeesalu siyaara ci Maodo mu jotalul nu ko góor gu mag na mën naa ko lool maa ngi koy wax xale yi maa ngi ànd ak àddina bépp di ñaan yàlla yàggal ko fi mas naa ko wax lu ko reeloo sa sa papa Abdou dama ko ne sëñ Abdou daal rasulullahi su ko yàlla mayoon mën na ko sax ndax njàpp ma mu tëdd njàpp ma mu tëddaale ca armeelam ba ca la ñuy romb bés penc du ko yeesal sax ba léegi day fay nuyu su dee ajjuma ak altine mooy fayal boppam jour yi ci des day délégué malaaka yi ko naan diw doomi diw dëkk sàngam nuyu na la mun a jotalal ma ko sama delloo mais ajjuma kañ ak altine mooy delloo boppam nu- nuyoo ma ne njàppam ma mutu daali la nuy rammoo du ko yeesal sax ma ne nag sa papa rasulullah de xam naa dina ne mu yéen kuy Abdou Aziz moo ko toog fii rek ne Abdou Aziz yàlla ko gudd fanam moo koy Abdou Aziz fu ko ku dëkk ma ne bu ne bi doon laaj dina laaj loolu sëñ Abdou Rabbi bëgg a dee te looloo am de eh, maam yàlla yi ñu ko sotti ci noppam bi Abdou Aziz Abdou Aziz rek de su ma waxee nit ñi ne moo kuy kooku waaye maa ngi ànd ak ñëpp di ko ñaanal loolu man sëñ Abdou dundam kaa njariñ la ci ñu bari waaye maa ci ëpp de maa ci ëpp de de dofuma de olof nee na maa ci goo ci gis dof la waaye suma gos bii du dof de bilaay bii dëgg la xam nga yàlla taal na safaraam sa yàlla ñu ci mucc digge ko tëkkoo ko su mborom nag tëkku ak digge moo am tëkku ak digge bari na lu mu tëkku annulé ko waaye du digge mukk annulé ko du mu ko waaw al waxdu wal waxidu waxidu mooy tëkku lu mu tere lu mu doon terewul terewul noppi def ne ko ko def ma nangam ma nangam tëkku teg ca wet wa lu mu santaane lu mu doon yemu ca def ne ko ko def man ma tëral la ma tëral la dige teg ca wet ga yi mu tëral yëpp lépp la sa bakkan puus pour nga bëgg koo def nga fàttaliku tëkku ba mu ca tëkku tëkku ba tax nga suur loola lu mu santaane lu mu doon su disee ci sa bakkan ba nga bëgg a tayal boo fàttalikoo digee ba mu dal di yolom ci yow am déet bari na nag lu mu tëkku faf ko annulé waaye digeem ko annulé mu ko karim li tax sëriñ bi baax ci man man gëm naa ne àjjana am moom pare na gëm naa ne safara am na pare na gëm naa ne bés penc dina am moom amagul dégg nga jullikat ba doon taat ba doon ba doon taaya ashhadu anna lasi jaa bi muhammadun xooq wa anna jannata xooq wa anna naar xooq wa anna saata nag amagul waaye aatiyatullahi ba fiha safara pare na àjjana pare na bis pinc nag pareegul xam nga sax pareegul balaa taxaw ñëpp a dee te nu ngi dundandi xëy na ñëpp toog ci barsax di nu xaar foog nu yem ba nu door a ëf bufta bi dafa bari lu yàlla tere ñu wax ma ko yii ma gis ko bari yu mu santaane ñu wax ma ko yii ma gis ko waaye léeg-léeg tereb yàlla ma bakku te safara du tax léeg-léeg santaane bi yàlla ma def ko te àjjana du tax doo ma laaj lu tax rus naa Abdou Aziz dégg ne def naa lii toujours mu wax la ko dana yus Abdou Aziz ne rus naa mu dégg mu dégg ne Ibou Sakho nangam rus naa Abdou Aziz dégg loolu booba ana safara waaw kay waaw kay sàlleetuma sax safara boobu ko boobu point ku ko dundandoog nit kooka fa mu la féete te nee naa ku yeewoo ci dëkk mbaa cim réew te rusula fa kenn ragaloo fa kenn soo taxawul boo dee dem safara nit foog mu am ku mu rus mbaa ku mu ragal am de waaye pandang rek bondang man lam yastahi falyafal ma yasha dis yàlla leen fi yàlla yàggal si ngeen jéggi ati maam yaa ngeen jotaloo bu baax sunu ziyaara ci góor gi di ko xamalit ne Maodo kii Idrissa néew nañu toog toogaay bàqa ba tuddul Maodo habitude la nag ci wóolereem yëpp sa papa dina am dina am ndeef ci wóolereem bu ëpp bi muy am ci ki mu wóolere ci wóolere wóolerem Omar Sall mii léeg-léeg sëriñ bi ne ko maa lay dox mbubbum tabaski ren maa lay jox mbubbu korité maa tax dafa am bés am ko xewle defar ay carte jox ci sëriñ bi ñu liir carte yooyu ba mu jeex sëriñ bi déggu ci sama tur mu ne waa ji liiraat ko waxul nag yi tax waa ji xoolaat carte bi liiraat ba mu teex mu ne ko ma gis mu jox ko xool ko mu ne ah man day waaru na waa ji carte yi na mu ci mën a bañ a defi Ibrahima Sakho nga gis googu yëg ma am ku ma dëkkal ñuy kilifa may waxtaan si boppam mu ne man ndax dina ñëw prima ma ne ko ah du bëri de dina fay ñëw de waaye daal mu ne ndax man de gis naa ko ci télévision ca pale ba mu taxaw a taxaw ba ñu di ko abal fu mu toog ma ñëw ne waaye maa ngi lay yëgalu tuuti rek sëriñ bi am na isaaratu bu mu def maa koy àggali mbaa yëg nga ne réew mu mu mën a doon ku fa dëkk ku mu mën a doon ba jéem a juwaale sa dawla ak sa diina yaa ngi ci njuumte fi mu ne boo nekkoon ci sukuraat ne bu ma dee bu laa ñu maa suul nañ ma yóbbu pale ba say mbokk yi bañ am de toll ci sukuraat na su ma dee ne ma président juróoy say mbokk yi bañ xam nga lu tax c'est pas certainement y a quelque chose kon nag jàkk ji nga toll ci at yi nga toll xalifa réew mi di nemmeeku sa ñàkk faa teew ak di teew feneen njuumte la yàlla na fi yar yàggal kilifa diine yëpp yàggal fi kilifa islam yëpp idde sa ngontale am na solo boole nga jullit yu baax ngir jeexiti sa damuy woy jur waaye sama waxtaan tey du bari góor gu ñuy wax bàyyi baawu sekk am na téeméeri at ak fanweer da daan wax ne su ma dee bu fi Ibou Sakho jëkkee na ma jullee bu fi sëñ Abdou jëkkee na ma jullee mu ngi dëkkoon nag fii ci yéen mu faatu nag yéen gën a jegeñ tiwaawoon tëngéej ma dem ñu defar ko ma jullee ko ba ñu rob ko sëñ Abdou na daxayet fekk maa ngi yor këf ki di wax sëñ Abdou ñëw ñu nuyoo nuyoo nuyoo nuyoo jàmm sant ba noppi toog toog man a pap waxatuma pap benn waay bu def ne Ibou Sakho continuer ma ne ko fu ma jëm fu ma continuer jëm ku yor recevoir di roosi xin bi ñëw taw looy doyee te recevoir waaye noonu man man duudu que si daañ maari yóbbu woon fa sama bopp de billaahi bu sama papa dekk woon ñëw suma kër ñu ne ko alaaji dafa dem tuwaawoon du wax lu mu fay wuti du ko wax de jag saaw wax naa ko suñu Abdu ba tey sama papa ne na ma garab goo gis ñu mën faa taaj añ maa ko maa ko felli dafa oyofoon te am fit waar wi daan na doon kilomètre si daaj maa ngi yor parasolum bu ñuul boobu waaye bu ñàkkee ci garab gu xeme mu danaan iliman sànko ñu di ko oowante ba mu soy mu ñëw mun a ko fëlil garab gi booba nee na seen tur laa takk ma yëg felli ko ba mu jekk ma dellu suma place bari na li Maodo yu néew néew wax nee na ku ngeen yéenewul àjjana de bu leen sàggan ba mu dëgg jeg saw bu ngeen sàgganee ba mu dëgg jeg saw de c'est fini àjjana la jëm incha allah te alaaji wàlli tuut ku ku tuuti ku tuuti lu muy wax la ngir daw riyaasa ak ubbu jaar comme que si dañ mari amewu ma fa poussière la ma fa topp du poussière poussière boo fëggatoo day rot xam nga lan la léget waaw kay léget nag moom faxas du tax yal na yàlla yokk suñu fiyoodaati rabbaniya te nag jànq yi xale yi patron yi ñett rek lay wax góor gi soxna si ngóor si bi góor gi dee góor gi te soxna si wéttale sugu ko mu ne ci kër gi tiib tiib ba am moyen ak dogali yàlla yu mu gisanteeg ku ma war a àndal ñu jox ko ko mu doonoon kenn ci kër gi di wëtti di jot si moom kenn léegi moom benn wéttal ñu di ñaar kan la léegi góor gi ak soxna si ñuy dem ba yàlla ci baaxaayam ak bëgg Muhammad ak fonk nit ni aadama foofu point rek la bu may jàdd tuuti fonk doomu aadama yaana yaana yaana yaana yaana yaana ba yàlla boole ni ci lu àddina gudd gudd tànk bés bi ma koy toxal dina fekk ku ñu wax doomu aadama fekki ko am na xeet yu bëri dañu fekk to tukkate àddina ñu bëri dinañ toog ba dégg ne am na lu ñu daan wax nag nii la meloon naa la meloon am na lu ñu daan wax fas nii la meloon naa la meloon am na lu ñu daan waaye doomu aadama moom yàlla dina ko sakkantal a sakkantal ba bés bi ñuy taxay suuf dina ko fekk bisimilah soxna si bisimilah ah sa dëj bëri jëm wara ak ki sakkantal googu mu bëgg bés boo xamee ne yow ma yow waxul فسيحق من في السماوات ومن في الأرض إلى ما شاء الله إلى من شاء الله دير دير دير دير ثم نفق في أخرى quarante ans lay doon bi ñuy tokkal àddina ba ñëpp kenn dootul yëngu ak bi ñu leen di dekk ñu jóg la yow ñeent fukki at lay doon yoo xam ne boo ba ma xee benn nen ca balo ko dina bërëngu ba Dakaaru dara du ko téye amul montagne amul descendre wa yasalunaka ani jibaali ne leen yéen sufa rabbi nasfan fa yazurha qaan safsafa la tara fiha hiwajan wala mta ñeent fukki guddi lay am di taw lu weex tàll luy niroog ndox miy jógee ci góor pour ñu defar ci nit ba boo jówoon taxaw mu accélé ci jumbux ku taxaw ku mu doon ndox moomu dégg nga ak ci ci jumbux yàlla door a arrêté niir bi suuf won na ko ruu yi dekkiwaat mu sàkk ci jiw woowu dénk ko góor gi way jur li tax mu gën a mas a fonk ni nit ñi bari yàlla bàyyi fi ñëpp seet diw ne kay doon sa bàyyi kenn digalu ko kenn tàccewu ko booba àddina baa ngi fes dell ak nit mu ne waaye sama dénkaane bii nekkoon ci mi am aadama ba arrivém jot ci kii laa koy jaarale pour nga gane si société bi ñëw ci àddina coobare boobu dudu kàttan googu diisuwul ak kenn kenn digalu ko ko mu fab ko dénk ko góor gi boog ba guddi mu yóbba benn délégation bu am doole benn malaaka ci suuf ni ko téere yi waxe mu ngi mel ni tànki nit ci paxi melentaan kon bu yàlla xereñee ba mu mën a dugg ci atelier bu tuutee ni biiri jigéen liggéey fa lu xereñ ñenni doomu aadama yàlla akim la xam nga malaaka yi war a ñëw ci kër gi pour jël dénkaane bi ci ginnaaw yi góor gi pour jox ko soxna si bu ñuy traversé fii kenn du dégg seen riir te benn avion rek bu fi jaaroon kenn dootul wax booba mooy demee dinañu yor dugg ci kër gi du ñu tiital ginaar du ñu tiital xaleel du ñu tuur ndékki ñëw nangu dénkaane bi ci ginnaaw góor gi ndànk placé ko ci magasin bu xat boobu nganda mu toll ni malaayika mën a tàbbi ci atelier bu xate ni biiri jigéen sans outillage sans matériel sans ouvrier apprenti liggéey ci lu toll ni nit xam nga les gars yi li ñuy xereñ xereñ xereñ kenn mënu fee liggéey loo xam ne bismillah bismillah quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf tonnes malaaka yu ndaw yi borom deux moteurs yi parce que dafa am deux moteurs am trois am quatre am huit am dix seen ga seen gaawaayu vitesse suratu Faatir yi boppu saar wulu wax waaw waaw jaayi leen malaayika ba noppi def leen uulul ak neex ok ok moo tax jox ma sa loxo waaw kañ soxna si mas na xeetu ma waa kenn du ñoom xam nga malaaka yi am deux moteurs xam nga lu mu tolloog ñun mooy julli suba waaw waaw wa salaasa mooy timis wa rubaa mooy gee takkusaan yasidu nag maa yasaau mooy naafila ci ci déggug fiq ci ci aaya bi fu ngay jaar mais quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ci tonne gaawaayu vitesse am soixante-dix-sept mille sept cent quatre-vingt-dix-sept kii neuf la woon kii sept la parce que asmaul usna tus'al wa tus'ina la te bisimillahi ñaata leetar lu duudu sept ba siin mimar am déet liif laam laam alsaxer bisimillahi rek la wax de waxuma rahmaani de waxuma rahimi bisimillahi ñaata asamaan la tiim ci ñaata suuf nga toog ñaata fan ngay dund ci semaine bi ñaata matière ngay lekk ñaata la ñuy composé mu door a doon nit moo tax yàlla laaj su jotal ko juróom-ñaari cër yi jëbi ñaari loxo ñaari óom ñaari tànk juróom-ñaari juróom-ñaari ku ko mënul yooyu woo ñu su jotal la juróom-ñaari cër yooyu jëb du moom la wax ñaar benn ñaari téem déedéet fay ñaari um ñaari cati baaraam loolu si ñi di ko defaraat yàlla moomu ko yi mu indi woon ba tey mu ngi yées toj nañu building yi defaraat godoron yi defaraat gaar yi defaraat kii yëpp yaa ngi yées peq rek waaw loolu seen ñu di ko defaraat rek du yëfam si gaay billahi ana kana mosa ñëw ne kaay leen wallu ma asamaan dafa daanu suñu kër ci benn côté ba ban bés lañ ne jant bi dafa manqué parce que diw gi dafa manqué dafa retard tey comme est-ce que presse diw gi piiti patata bu heure bi jëlee rek mu ne ñokket ba jël place ku ko doon yëkkati ku dul yàlla bër bu set fukki mu ne bër gaaju waaye danaa dogeet ba jëgut bi rek ni tëpp tëpp bu son tutti jëri li mustaqal laa zalika taxadiras wal xamar xadar naa manazila du yàq waxtaanu kenn du tiim kenn ba nga ne dégguma ci ni ngay wax avion bi naaw coow li xam nga xamul la coow li li ko war a de ñàkk mën ñàkk mën rek góor gi dafa am matière bu mu mayul kenn du ko jaay mooy bañ a yàqu bañ a yàqu mayewu ko jaayu ko bâtiment bi bés ba pare keroog bañ koy inauguré keroog lay commencé ràpp non ndax day am ku ku ku sant Cissé ku lekk du jot a fomp diw ci loxoom ci peinture bu bees bi góor gi soxna si ngóor si sun borom nag ku mat a ragal la waa ji dafa doon ragal naa yàlla yamuma ci ragal naa ko ragal yàlla yamuma ci ragal naa it ku ñemeñ yàlla ragal naa yàlla ragal naa ko ragal yàlla dox gannaaw ragal it ku ñemeñ yàlla ñu ne ko loo ragal ci yàlla mu ne doole ji dafa bari te sañ-sañam du diisul lu tax nga ragal ko ragal yàlla mu ne yàlla daloo yàlla daloo tànqam du ñaanam lu tax nga ragal ko ragalul yàlla mu ne pexeem du baax ko ragalul yàlla pexeem du rafet moo tax ma ragal waaye ñun ñu baax ñëpp ñu mësaat def buñ mësaat ne allahuma yàlla nangul leen dañuy kontaan benn kontaan buñ ne allahuma yàlla gàntu leen dañuy kontaan téeméeri kontaan parce que dañuy xam ne la yàlla dafa gën li ñu naroon déggula ma bu wax la waxoon naa la bu yàgg ne boo bëgg am dépendant total kaay ma déy la loo narati lu mu la ñor ñor ñor nga ne suba ma def nangam bu ci suba saa leneen am lu la nga nar la am na la gënal la nga naroon fekkaagu la foofu doo am jàmm de foog nga ñaaw njort ak di jiñaate tuwaaka ñeñ ñi waaye yow bu la wóoree ne lu mu ne dina am dina am kenn mënu ko tere lu mu ne du am du am kenn mënu ko taxa am ba tëddee nelaw waay ah te affaire bi nii rek la toll ku laa biir la dañ ko koy àbb sax ku lewet la waaye nag ku mën a dikkale la day xëy bés rek taxawu la ne la mbaa yëg nga ne guux boo war a naan desul ci ndakaaru ndakaaru tuu nag tuu tuu tuu du ci mbalka yi du ci robin yéeti naan nga ba tàyyi doy na waxuma la loolu waaye benn benn tibb bu war a ci dugg sa mbaq amatul ci kaw suuf du ci saaku yi du ci magasin yi tukki nga ba tàyyi doy na benn paa mayetuma la ko xefe gën a oyof waaye bu mu daanooti bu mu jógati ngay xool direct rek yu wette di la dal xam nga armoire mi lu ci ne de waaye bu ci caabi duggatee beneen loxo la de dootul pour yow de laaju yëkk mu ko mii mbaa yëngu na buñ ko soletee keneen la da nga daan tiituro ne yaa moom kër gi tey ma génnee la ko définitive du quelques mois na mooy wax ak waa ji waaw yàlla yàlla moomu mayoon la démb nga dem grand place naan attaaya añ moo la dikkale tey ku mat a bàyyi xel la géy bisimilah xaas géy bisimilah xaas géy
gën nga xam sa baay bi
tu makka
oh déggal jox ko baatu makka
alaji papa géy kenn la mbooleem kilifa yi mu ànd loon ku ci ne am na sa ngërëm doora tàggule ko ki yow rawatee nag te mu jokk mooy seen ren kaar yàlla na fi gën a yàgg yàlla boole ma wax rek ñett ñi seq kër gi góor gi soxna si ngóor si du noonu xam nga ki jëkk a gàntul baayam na ko ma lànk xam nga ki jëkk a nangul baayam na ko loo wax ma def ko xam nga ki jëkk a gàntul jëkkëram na ko ma lànk xam nga ki jëkk a nangul jëkkëram na ko loo ma sant ma def ko xamula lool de gos bi jëkk a gàntul baayam nag bi njëkk gàntu baayam nag jigéen ñi kaar dégg sa jëkkër am na solo
loolu sax
ku jigéen nag lu mu la jox lu do- lu dul ndoxu sam-sam dëkkul màkk ku mu am sam-sam soxna sa waaw ba mu déggalee borom këram ñu jiit le ba foofu mu am ko inni ëzëkantu min durriyati bi waadin xayri si saax inda baytika muharram booba Seydou Ndiane xew fa bu fa xewoon loolu doon sa jëkkër sa nawle la Seydou Ndiane loolu xamul ku sa borom kër wax ne sa wujje nee na naa la génnee jógal mu ne ay ca tam ko booy jéggi ma suum ñu gàddu seen mbuus sa soow aslaf ci géej seeli yàpp dem ba ci àll bu kenn nekkul mu ne ko maa ngi bëgg a guddee àll te sa wujje wa nga xam ne moo ne naa la génnee man na ma tarde mu engrais ma kon nag fii laa yem toogal na ko fooyal bandi ak liiram xale bi jooy ñaagam ñaagam ñaagam sidi baraam mu tan xamul ko fii nga may bay tere yi naan xew siir yi sab jaxaay yi di yuuxu xale bi nekk ndëm waaye ba mu ko ne ndax yàlla la ko sant la góor gi am fitna na ko waaw mun ko kon de boo yoboo dem kooku ku mu desal doo wéet aj ñaata façon la ñett
tawaaf nag
ah man sëñ bi maa ngi bëgg def nag sànni jembaraay nag ayaamu mun naa nag muhrimaati daaxili kaaba nag muhrimaati xaarijil kaaba muhrimaati daaxilil xariyati nag ñett ñett la ko yàlla def rek ngir sa imaam Ibrahima Ibrahima Ismaila Isaarata ñoom ñett ak ñett la livraat iqra ak lu ñu wax tamatoxe tawaaf ñett la widaa ibaada ak xuduumi taxaw mi nam ñetti fan la salaasata ayaam la jàmbaraa yi ñuy sànni ñett la uqbatu usta ula kon boo yeboo ne bii maam ibrahima bii i xale bi bii soxna si bii maam ibrahima bii xale bi bii soxna si yàlla di ko doxal nag di ko doxal di ko dox ba isa alayhi salaatu wasalaam wasalaamu alaykum wuliddu du loolu wax wa yoma umuttu du loolu wax wa yoma ubxasu ayya bokk nag nag wasalaamu alayhi yoma yamuutu kële yamuutu la kii umuutu la kii muta mu daari wal mutakallimi wax day wala kii xaayib la ñetti fan nga am moo gën a danseere ci fan nga am bés bi nga jublu dugg ci société bu xat bi bari noon bari coono nga nekkoon ci njàmbur ci sa néeg ndey kenn xasaloolu jotewul ak kenn taa ñu xëy buskale la ba nga génn dareet te sunu borom ni mu lay préparé le ci àddina ne la lay préparé la alaxira ma jox la ci preuve keroog ba ñu lay ngénte laax yañ doon lekk keroog la ñor déedéet jiitu na loolu de
ande suunu soosu ñu gar daf ko laax ci sa bésam ngénte keroog la sax ñoro ñu góob ko toog na fi at di la xaar xar mi la reer nag yéen a maas yaa xar mi ku mag xar mi la mag xar mi ñoo na fi un an di préparé te kenn xamagul fi lu fi indi xar mi am xarum diw mi dëtt xarum diw male mu am ci doom ju góor parce que waa ji dinaa ko may déwén doom moom lañ koy tudde c'est bi préparation xam la xudóomi que bu yàgg si noonu la lay xaaree ci àllaxira xam nga duñ la dugal ci bàmmeel ba noppi malaaka yi door a ñëw sa nga leen di fekk buñ lay yor dina fekk ñu ne fa kañ la woon tabaski te aussi ci janvier ci ci ci ci fan yii tabaski
le 4 juin def na.
waaw kañ ba si tabaski boobu anam ban dëkk ngay taxaw bu di bëta dëkk jullit am fa ku reera cere cerey neen amoon xewal mbokk yi kay tubaab sax.
ana fan ngay taxaw bésab tabaski ci bésab dëkk dëkkab jullit te gisu la ñuy sokorootu ca tàkkusaan ak di yéex ak lekk res xamula lu jur loolu doom ji nangu loon bàyyam Ismaïla allahu allahu nangu ba mu nangu loon papaam pour ñu rey ko ci la xar yi dee ba ilaa yu mal xeet waxuma nag la ko yàlla dencal ci àllaaxira allahu soxna si nangu bi mu nanguloon jëkkëram ci ñuy dexe ku jógee màkk indi wala ndoxam sam-sam sans compter lañ ko denc la la maam Ibrahima yi dégg ga mu déggaloon yàlla ci lañ ko dugalee si taal bi te mënalu ko dara Ibrahima dafa déggal boromam jabaram nangul ko doomam dégg yaay kër gi day dal di dox patron bi bu bàyyi xelam ci yàlla jabar ji respecté ko doomam topp ndigalam day tàlli kër gi day ratax waaw day ratax kër gi day ratax waaw kër gi jëkk a nangu mu ngoog moo ne kër gi day dal di ratax kër gi dañ jëkk nangu Ibrahima keroog bañ ko ne cas ci li gën a gàtt daal wala xad aatayna Ibrahima rusduhu min qab min qab wa kunna bi aalimin Ibrahima maa ko may ak njub lu jëkk juddoom parce que doonul ci diine kenn yàlla nag teg ciy wax neel moo ci teg te juumuma te juumuma wakku naa bi alimin xam naa li ma def Ibrahima maa ko may ak njub lu jiitu juddoon te xam naa li ma def
ak a xam ak a xam
waaye keroog ba mu ne papp yaa ca ca boppu kax yaa abati laa taxbudu li ma taxbudu maa laa yasmau wala yubsiru wala yuxne anka shay yaa abati inni xad yaani min al amri maa lam yaatika fattabini ahdaka sirata sawia yaa abati laa taxbudu cheytaana inna cheytaan kaana lirahmani asiya yaa abati inni axaafu an yamasaka min arrahmani azabun min arrahmani fa takun lisitani araqib ñeenti yoon la oo papaam obu ne obu daw yaram la ndax yaa abati papa papa papa lu dul dégg soo koy di soxla du gis sooy toroxlu te nit boo ko toroxlu loo war na koo gis li ma taabu de maa laa gis moom soo ko oyee du la dégg wala yëbsuru soo toroxlu yi di ko gis te li gën ci ki ngay jaamu boo ko ooyee ngir tiit mbaa nga oo ko ngir walla mu dégg ci moom la du ci dégg balaa yëf ne am ke sey ah mun la dagaasay lu lay lor mënu la xëcc lu lay jëriñ bonkal benn la ay yaa abati inni axaafu ah laa taxabu laa taxabu di cheytaan pap ay pap bul topp ndigal seytaane seytaane noonu nit la ci aadama ba léegi yaa abati xalaat naa de yaa ngi dégg waxin wi ni mu amee teggin baax a baax a baax
xalaat naa de yàlla laalal la ëllëg mbugal te seytaane la koy yóbbee gis nga jiiñ na ko seytaane jiiñu ko sax baay bi fële daf ko ne su doon ne kuy wax ak kuy wax wax bu dul teggin daf ko naan dof nga kuy jaamu lu dul gis du dégg kooku borom borom ab dof la war a tudd waaye dafa teggin dof gi waxu ko it ne maara atini min ilmi maa lam yatika fattabi'ni ahdaka sirata sawiya papa am na lu ma yàlla déy lu mu la déyul kaay ma tette la mais bi mu àggalee dégg nga li góor gi tóog ok li ma moom pamti wokkoon yaa ibrahima oo koy ak nii waxu ko sama doom dafa jaar ci tur wi ismu alam waroon na ko tontu doom sama awaay bàyyi sama waay kaay ma ànd topp yàlla bu tontu lu dëppoo woon ak waxin wa daf ko naan waay doom sama waay nangam nangam waaye daf ko ne yaa Ibra- yaa ibrahima la in lam tantahi la arjumannaka waajurni maliya sa gémmiñ gu réy gi boo ko tëjulee dinaa dajeeg yow arab nag bu ne la dinaa la jam toujours ñaare jam ci arab mooy wax la loo mosul a dégg te mu ñaaw te mu dëgg ci say way jur loo mosul a dégg te mu ñaaw lool te sa ñoom maam defoon ko bu la arab ne boo ma watul dinaa la jam loolu la ci jublu wala boog dinaa fab xeer toj sa bopp yooyu ñaar rek la Ibrahima soo bàyyiwul sa wax ji dinaa la wax lu rëy loo mosul a dégg wala dinaa la dóor dóor yu métti mu ngi ci conversation ak papa di ci digg kër gi xam nga la ngay def waa jur ne Malia forcé chez moi génnal waay
ak loo fi am na allahu akbar
Ibrahima amul nijaay amul papa Palestine a jëkk a dëkk Room Kawsara dafa dugg ci nekk rek takk paktaasa taxaw ci digg kër gi ne ko salaama aleyk astafra lak rabbi papa arwaat dinaa la baalul ak yàlla dinaa la baalul xëy na yàlla waaye baalu googu alxuraan mujj na ko weddi ndax jaaduwul kenn di baalul sa baay bu di yéefër moo tax ba nga xamee ne alxuraan wàcc na ne maa kaana li muminin an yastaxfira jaaduwul ci nit muy baalul ab yéefëraw walaw kaana doonte ñaari woy juróom la dafa am ñu ne Ibrahima baalu loon na baayam te yonent la yàlla ne du dëgg maa kaana istigfaaru Ibrahima li abi illaa an mawidatan wahadaa digale woon falammaa tabayyana annahu lahu qaryun tabarra'a minhu digale woon jotu ko def daf ko noon dinaa la sa astaghfiru sinu sinu tawsif la maa laa dem yàlla naa fa la maxtasalhum maa yaxbuduuna min dooni laay manit gor laa ba mu antanoo ca ndeyam antanoo ca baayam antanoo ca dëkk bi ngir man manit ci laa ko wallu may ko ñaari doomi yonent ñoom am nañu bési fet am nañu benn baye bu yaa bu dànd dëkk bi deux kilomètres ñu miir ko sampal ke nag ay statue statue yi kenn nag ku ne sa doole rek ngay samp ku am doole yett bant bu rafet moom nga fay samp mu doon yàlla caaxo boo amee doole def betteex nga samp ko muy yàlla caareen soo amee doole xaalis nga def ko muy yàlla sàlleen giir gu ne xeet wu ne dafa am seen yàlla am na ci nag ñoo xam ne seen yos dem na ba di wurus ngir doole yi famille famille ba su ñuy dem feet nag dañuy toggal seen xërëm yooyu ay ñam ku ne teg sa ñam ci sa taatu xërëm ñu dem ca feet jëggu tasee nag ñu jaar fi fab ndab yi ne dañ ciy barkeelu xam nga lu tax ñu ci barkeelu xam nga la xam nga tuur tuur loolu bu yox tuur maa ko xam maa ko xam maa ko gis
xam nga ne tuur mi borom a ko fi tuur moo ko fi def de moo ko fi def de
waaw parce que moo fi tuuroon am sol waaw mooy tuur mooy waaw kay moo fi tuur soow waaw moo tax sànqale yi ñëw di for soow yi waaye mbott yi seen salaxdale yi ñëw ci si ndax yi seen mbott yi ñëw ci jaan gi seen si ndax yi ñëw ci kon kañ tuur mi yaa ko fi tuur
moo ko fi tuur de moo ko fi tuur loolu la nekk ndeset yooyu la ñuy fab dem di ko barke la ko barkeeloo Allahu akbar ba ñuy dem nag force ni ñu Ibrahima pour yóbbu ko moo tax ñu ne bés penc bu nit ñi jaaxlee ba dem ci moom pour mu wallu ñu dina leen am naa ñetti wax yu ma waxoon yu dul dëgg dama koy lee yàlla laay xalaat bii may wax ci la indi sa xiimul fële ci sariyat fa tawadaaru foog nga dem tey ci mbagg yi mu watatu ñu forcé ko mu jóg dox tuuti àggaat suuf ba ñu ne kii daf ñuy tardé bu mujj bi biñ ko yëkkatee dafa fab ñaar loxoom tax ci naqa bi ni sama biir a ngi toj sama biir ay metti indi sa xiim fatawalaahu ñu ne ko fa yow daan di nga dem ba mu séentoo ba ñu dem faraaxi ilaa ahli ndeysaan teg dara jotu
mu tëdd duggale ci gidd ba xëram yene ne maa laakum laa ta laa taakuluunu lu tax palaat yi lekku leen ko mu ngi wax xëram yi xam na ne xëram yi di wax ñu ne pat mu ne maa laakum laa tantiquuna ñu ne pat du ngeen lekk xëram yi ne nii ndeysaan
du ngeen tontu koy wax ak yow xëram yi ne nii rek alquran a xaraax bi jëm yi nii am am jàngu loolu ah kay xam nga dóoru ndeyjoor a ëpp door a dóoru càmm yàlla ne mu jaayu ci côté ndeyjooram waxul ci côté càmmañ ak seen mi ngi faraaxe ilaali darban ba ja- ba seen yi dalee xërëm bii dal ci xërëm bii booba teg mu dal ci bële mu toj falax lax lax lax falax lax lax ah faaleen wala cekkeen ñoo fa ëppoon doole seen xërëm a ci ëppoon doole waaw mu bàyyee ko fa nag dem fa semiñ ba wékk ko ca ca ngand maama waaw wala nag fekkee tegi ñoo ci ëppoon ñoo ci ëppoon alee ñu jege nag ju- julleekaay ba pour jël si ndab yi ndab yi fekk xërëm yëpp mokk xaaloo man faala hada bi aadatina benn waay nee na ma ab sëriñ ñetti baat ba am waaw benn bi su ko waxee rek dafa dafa jaaxle benn bi nag bu ko waxee dafa dégg ci noonam lu ko neex benn bi nag kenn mënu ko ko tax a waxtu du dañ ko buux dara muy boobu ñox ja sàkk la wax mu ne ja sàkk moom boo ko déggee rek xamal ne sëriñ bi kii na waaw waaw waaw dafa baax dafa baax waaw waaye inna lillahi wa inna ilayhi rajiun boo ko déggee rek am nañ tiit ak dégg-dégg bu ko bi waaye bu ne xaalu xaqataay nett nañ ko ci noonam dafa neex mu bëgg a déggoo kañ ñu daal di ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaw man fa alaasa bi haadatina ku def jëf ju ñaaw ji gardien ba ne samina fàttan yëzkuruhu sànq dégg nañu xalil góor bu leen di ŋàññi ki doon doon wax maa lakum laa tantiqoon ak maa laa taqoon samina zattan yëzkuruhu déggoon nañu sànq benn zënëm bu mel ni da leen doon saaga ñu ne na mu tudd nañ ne yaqulu Ibrahima ñu ne fàttu bi alaa xayri naas xale yu góor bu ñuy wax Ibrahima daal moo def lii parce que déggoo ñu wax ñu la ale nañ ko da liggéey sàndar mi daal dem tëbër jëg yoo ko indi teewat ci gédd bi ah ah anta faalta haada bi ali atina ya Ibrahima yow yaa def lii mu ne faaloo kabiru na
loolu gën a metti wax
laaj leen ko nganda mii nga xam ne ñëpp a toj ñett a tojul te moo gàddu semiñ bi laaj leen ko in kaana yantiqun yam ay yàlla yu mën a wax laaj leen ko côté côté ci rakkam yi ak ak ak ak fereeram yi ak jar ak jar ba ñooñu dañ ko bokk nañ ko war a laaj.
waaw léegi
am nañu mbégteeg yaakaar torop ci seen juux gi ngeen fi juux ak teew bi ngeen fi teew ngeen jotal suñu ziyaara ci ñëpp tàllal leen seen loxo ñaanal leen tel te nanuñu fursa soo ko amee tan taxis maanaam jekkoo su la dalee da ngay profité waaw ñii samay jarbaat lañu di samay soppe ci wàllu yàlla ak yonent bi maa ngi jëkk a def mawludu nabi mille neuf cent vingt cinq booba ndawe naa maa ngi fàttaliku ne kees lañ ma dëppal fukki at ak juróom laa am ak yu tome noonu juguma ci ba samedi passé daaw sant nañ ma conférence bu am doole ulamaaw yëpp daje fa ma yëkkati conférence ba xale fa nekkoon te jàng te yàgg fa lool jaaxle lool ngir la ñu dégg ci man yàlla dogal ma yàbbi ko fa ba ñu amoon décidé mais dañ may defal fondation Ibou Sakho ba yëkkati woon ko de jot nañ ci def ay réunion yu am solo daan ko defee ko Ousmane Diagne muy def ay njogonool yu am solo góor ak jigéen waaye ay awaaye sottee am ñi tëral ko waxtaanatuñ ci waxtaanatuñ ci ba ñoom ñu réunion nag ne baat bi comme ci suma xew-xew lu jiboon su fekkee dañu dafa xaw a nelawit nun dinañ ko yee doxal ko ba mu sotti na mu ware balañ cee def dara seeti góor gi da ngeen ma jóge ci man am yéene bu rëy ndokk yàlla nag kii moom na ngeen ko seeti kii daal cër bu mu am ci loolu jëm si ci man xeeb naa ko ndax dafa am lu ñu yàlla boole woon te boole wu ko kenn fay dana carte bi ñoom xërëm yii waaye su ngeen ma waxee dara tooñ ma laaj leen ko xërëm bu mag bi gàddu semiñ bi ba xam ku def yu ndaw yi nii ci alxuraan dudu foofu am na ñaari sew sew
ban ak ban la
fasaloo kabiruhum hada laaj leen xërëm bu mag bi ku tëju ndaw yi foofa téere yi ne nañu ñoom ñëpp d'accord nañ ne ci erreur la ñu ne Ibrahima ne ci dëgg mais poussé ba yàggul poussé ba yàggul Iblis songaate ñu gënaat nag tontu ko nag nag laqad allimta ma haa'ulaa'i yantiquun diggante biñ ko la xamtu laqad allimta ma haa'ulaa'i yantiquun ak bi mu ne fasalu in kaanu yantiquun diggante boobu duggoon nañ ci ci gën ba nar a bàyyi xërëm yi waaye Iblis ñëw rafet wax bu bees ñu ne ko yaa ko tey da ngay fontoo xam nga nag kii du wax mu ne kon ufil lakum li ma ta'buduna min dunillah yéenay def yéen ak yàlla joo xam ne du wax du tontu yàlla joo xam ne buy taw suñ ko suñ ko rawalewul mu tooy bu daay gi ñëwee buñ ko rawalewul mu tàkkaal ci daay gi kii def di yàlla am yi am dégluwu leen ah kay laa ilaha illallah dama leen commencé Ibrahima ci te góor gaaf soxna ci mu ngune sa waaw waaw wala xad wala xad atayna Ibrahima rusdu ci nguneem passage am yëpp waaw lii lu ngeen ci xam gos bee ko def gos bee ko def gos bee ko def ñu ne nag kon mënuñu ko feyel lu lakk ko suñu xërëm yi daal ku leen toroxal nii suñu peek yow du mën a doon lu dul taalab taal lakkale ci Amad Sall noo foog ne ne la ñu lakk Ibrahima pour taal nii déedéet dañu gas soixante dix mètres ci suuf def ko ci yaatuwaay di ko lemmat di ko lemmat di ko lemmat di ko lemmat di ko utal nag solom boo xam ne digg bi du am dara bi mu génn si bi mu génn it bàyyiwuñu ñu continuer ba am sept mètres
keneen
fa araadoo bi kaydan fa jaalnahumul akhsariin bismillah erreur bu rëy di ko baalu alaaji soxna si aja bi muy dugg te ma bëgg mu am fu mu toog dama déplacé sama goro te mu toogoon ci wetu soxnaam kooku faute bu rëy la une grande faute mais baal leen ma ko ma ko baal ko koy soxnaam ñoo de doon waaw
maa ngi nga xam ne mu naan ma mu naan mu bàyyi maa ngi toog
képp ku bokk ci peuple bi télégramme yi daw Bamako xaay Tambacounda ku mësoor war a dem soldat wala nga mësoor war a dugg néegub jigéen daa indi une tonne ci mat Euh, euh, fonctionnaire yëpp nag ñoo coupé ko seen solde juróom ñaari weer ok parce que yal na yàlla wutal lu ko gën te def yoon bi mu fekk soxna si mu boobu la ko ci yiñ ko doon defal waaw waaw ndeysaan noonu la de alaaji mii li ma buux ci cent mille ci kaaba ga nii nii te de te yàlla képp ku aji mag dellu si sa kër toog ba def ñaaw téef ñaaw téef ba réy ci yow ba nga defe ne duma la ko baal jortu ko ko nga jortu ne duma la ko baal moo ëpp bàkkaari mbindeef yëpp déedéet dudu paan yi mu santaane mu ne nga def ko ba mu teer ñëw nag defaan njuumte parce que Hasan Saasili yu ne na maa ngi laa dénk lu tuuti loo sow sa bàkkaar bi bu mu rëy ci yow di rëy di rëy da nga ba nga bëgg ba nga bëgg koo ëppal yërmande yàlla comme jaanama nga jëm mooy addis boobu rek képp ku dem màkk aj dellu si defaat lu tax nga foog ne dinaa la ko topp ku boole bàkkaari mbindeef yàlla di ëppale ndax li tax da nga ñaaw njort jëme ko ci man da nga ma tuumal kon ku mu ci am nañ ku baax ku yàlla yombaloon yoonu màkk sëriñ bu mag ak mu ne mu dem ba mu yàgg mu ne mu man sama yoonu màkk yu bari yële war na ma laaj ci istixaar ba xam yàlla nangu na ko déet mais ba mu laajee borom bi sama yoon yu bari yi yàlla daf ko ne kër jàmbur ko fa bari tànk moom la neex polo
waaw kon parce que ay um jërëjëf yal na yàlla wuutal lu gën loolu te it yool bi soxna si du mënu koo jëriñoo waaye yool bi yal na ko fekk di jaayi rasulullah ñu dolli ko ci poam ñu taal juróom ñaari weer def appel ñu wàcc si ci Kuufa nga xam ne moo di capital bi ñu jëfal ko ca tàpp muy boy ndànk ba xam ne matt mi ci kaw ñu ngi yëg ni muy rësi di fekk ñi si biir ñu di ko surveiller dem nañu bi benn picc mënatula naaw tiim mbir moomu te deewu la diggante ba ak asanaan dara mënu fee jaar sa ëpp la keroog bi Namroot ñëwee it def si a ngeen koy wax ro ro inspection ji ba ne c'est bien ñu jàpp ne sàngam bon koolaa bi ñëw na am na ñu sàkk bés am na ñu ne samedi la am na ñu ne talaata la te yoor yoor ñu indi fanfare yi indi turbine yi notable yëpp yéeg ñu génne maam Ibrahima futti ko mais moyen bu ñu mën a def ba sànni ko safara yi amul ndax am nañu ne daal fukki junni ak ñaar lakk nañu ci ñi ko doon jéem a dugal safara yi ala alawtu leen iblis feeñ fa da leen ci réunion bi laa ñëwoon yor sama pexe bopp na ngeen wut lu ñuy wax lenge mooy yooyu ñuy yëkkatee bagage yu diis yi ñoo fa lañ ko jëkk liggéey ñu ut ko yeew Ibrahima dégg ko ca biir ca kaw malaaka ñëw toog ci malaaka nag kenn amul doole yëkkati ko ñu yëkkati yëkkati mu tëb Iblis ñëw ne leen malaakaa ci toog mais au lieu ku jigéen ku sëy mu def boppi neen malaaka du gis boppam ku jigéen ku sëy ñu oo ku jigéen muy ñori mu sóor ga malaaka yi daw parce que jóg jibril nag dër ibrahima allah ka aajatun mu ne ko amaa fika la waaw amoon ban soxla mu ne ko du ci yow de yow mu ne ko miman mu ne ko ila rabbi ci ko am soxla mu ne ko sama borom mu ne ko fas alhu laajal yàlla boog mu walu la mu ne ko doy na ko xa- ak xamam li ma nekk doy nag laaj